gaw ma ni ci histoire élection Sénégal musna faible non. su dee nag Sénégal liñ ñu woon ci campagne bi deug la ci ñom. Japp na ni amul dara lu wara mëna justifier que duñu ñu génn woote ba nga xamni ne fii ak 6 h 18 h dinañu dépasser 50 wala 60 ci taux de participation ndax buñu togué sen kër yi lolu Macky Sall ak nguuram lay arranger parce que ñom ñi ñi jox xaalis pour ñu voter ñom dañuy génn. waaye ñi nga xam ne ñoom euh, seen xalaat ak seen xel rek la ñuy demee pour voter nga xam ne ñooy tànn te lu ci ëpp ñun la ñuy tànn ñoom ñooy faral souvent di toog ci kër yi ak ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi moo tax ñu ne leen euh, ñun de li ñu waroon def def nañ ko mënuñu def lu weesu lii bu dee nag dañoo bëgg Macky Sall wéy wéy toog ci dëkk bi wala mu am sañ-sañ ne day def troisième mandat nga xam ne bu ko fi waxee. ñi woote jiwul won pour dag lolu ñom ñoy ñëk a génn dañuy dem xeex yi motax ñu leen amna lu gëna yomb moy ñu fexé ba tay ji Macky Sall ñak assemblée te likoy andi moy woté du tok ci kër yi di commenter du top ci gannaaw caravane euh, amul lu ko mëna justifier du taw ndax ñun xamanté nañu biir Sénégal kenn ku ne ci ñun li ko dëgg-dëgg buy taw wala mu naaj ba tang jërit di nga génn dem doxiko kon fi lañuy xamé fu mbir mi tollu ci sénégalais yi té amna ñu yaakaar ni toll na leen fu sori gëm naa ni euh, vote bi day door dong defe na eggaguñu midi gëm naa ni fi ak 18 h fep ci Sénégal nit ñi dinañ gën massivement voté ba ñom taux de participation bu raw bi ñu amone sax élection présidentielle lolu bu amé rek man gëm naa ni nguuru Macky Sall jeex ma ci profito nak ci nii ñu ko gisee nii ci centre de vote HLM bi. Euh, jàpp naa ni noonu lay demee fépp ci Sénégal ci tey ci dal ak ci jàmm parce que wote jarul xëccoo lépp lu ñu leen mën a may ñoom mooy xanaa li ñuy def ci koñ di essayer jënd nit ñi waaye ci bureau de vote yi ak ci centre de vote yi am na loo xam ne kenn dootu ko may kenn moo tax ñu ne leen am na bu ñu jëkk boo xam ne kenn du ko nangu mooy li ñuy wax transfert directeur wax nañ ko waxaat ko jox nañ ko consigne suñu ndaw ñëpp fii koñ bu nekk ñi fa dëkk xamante nañu kuñ fi transporté fii Ziguinchor am nay kaar yu bëri yu fi dugg dem si guddi man am na ñu ma ci xam ñoo xam ne dëkkuñu Ziguinchor xamuñu Ziguinchor élection locale lañ leen njëkk a duy ci ay kaar andi leen booy am na ñu def ak ñoom bii pa andiwaat nañ leen ku dëkkul ci koñ bi du voté ci koñ bi loolu moom na leer ñaareel bi mooy nañu fexe ba li code électoral wax nañ ko respecté bu ñu ne bulletin yi. dem na ba manqué dañu fexé ba bulletin yi nekk à jour bu manqué ku dem ba bulletin bu commencé wàññeeku nañ ko sololaat ba mu tollok ñeneen ñi mais duñu nangu ñu naan rupture de bulletin amna parce que ñom bu démé ba jaxlé ba japp dañuy ñak dañuy saboter defoon nañ ko 2017 Touba waye fi duñ ko fi def Touba duñ ko fa def Dakar duñ ko fa def fenen ci Sénégal duñ ko nangu ñetteel bi ma leen di wax euh intimidation yi yoy ñuy essayé légui laaj ngeen ma ci nasaran ni dégg ngeen ay waxu nervi yi ñu dugal Ziguinchor fi nak suñu dëkk la té dinañu xam ni ñoo ko moom bu soobé yalla suñu yeboon cent car ay nervi duggal leen Ziguinchor wax naa ni élection bi amna lo xamné buñ ko défé tay lay mujjee ñu def ko té koy def xam nañ ko waye bu ko défé mom ci boppam dugg Ziguinchor dina ko jafeeti ndax suy def li def mom bañ na ba du fanaan Ziguinchor dem ci guddi fananu fi kon la ñuy def dañu foog ni nit ñi mënuñu koo régler waaye mën nañ koo régler te jël nañ toutes les dispositions mais ma anticiper si ni. lu am rek responsabilité la parce que élection la ñu wax la situation citoyen bi nekk day jóg dem tranquillement bureau de vote am voté dem ñibbi loolu jarul nervi jarul xuloo jarul xeex ñun ñi ñëpp suñu voté par dañuy dellu suñu kër noppalu ba bangon ñu déglu résultat yi loolu warul am problème dañuy indi fii ay kaaru nervi di ñaan nguur gi quel que soit lu am nous accepter li nga xam la décision des sénégalais Nous respecter le verdict des urnes parce que cette élection dootuñu ko au Sénégal Macky Sall na ko xam 16 mois moi, ko dese ci réew mi mu abal ñu na respecter li nga xam la volonté des sénégalais je vous remercie.